mais maman Aïcha su ma desantee tey ba tey foofu noonu rek. Mhm. Euh, ñu gis tamit récemment si màggal tubaa gi tamit beneen xew-xew boo xamante ne nii muy le cas de Marichou je pense que xam nga ko. Mhm. bi nekkoon ci série euh, waa Marodi bi. Mhm. moom tamit euh, dégg naa dafa nekk si biir jumaay Touba ji. si dégg naa sax ñu ne si kaw sorol bi la yéeg si kaw di filmer boppam teg lu si mel ni benn son benn artist ndax loolu yow rafetlu nga ko. ah loolu yow sax yaa ma ko yëgal maa ngi koy maa koy door a dégg waaye dafa bari ñoo xam ne dañoo riir rek dugg ci murit gi waaye ñun ñi nga xam ne xam nañ kuy sëriñ Touba. fii lan juddoo fii lañ yaroo fii lan màggee du ñu ma riirandoo du ñu jël ay son artiste di ko teg sax biir Mbàkke Bawal sax ci yoon waxantuma ak Touba ci kaw jumaa ji su fekkee ne moo def loolu de riir na waaw. d'accord mais loolu jappo mana ni ñom euh, des fois manam ñi nga xamanteni ni dañuy faral di nekk ci série des fois ñu ci bari neen pour jaay rek mo waral loolu parce que tamit lu do ni bir jumaa ak Touba yi am accès si yenn lieux yu bëri mais defu ñuko mais tay buñ la duggalé ba fofu non si bir jumaa ndax jappo na sa xel leneen mo sa wara mëna nekk lu dul di ay son waaw kuy jaay artiste wala ngay jaay maanaa ba yex ci Serigne Touba mhm. war nga mëna def demi tour lim fi def mami kenn defu ko fi mhm. te lima leen di ñaan moy nanu amuk taalibe Sëriñ Tuubaa al dana alak ñu baree baree baree bare te duñ ci rendre compte <laughs> Sëriñ Tuubaa dañ ko war a fonk am fun ko teg def noo liggéeyali te ba mu nekkee ci géej gi nekk maa yombe nu dugal ko ci poor bi indi ko njaareem liñ ko def lépp maami kenn topp ko maami kenn fekkewu ko mu ñëw bàddinu ay xéewal julli gi ci géej gi màggal gu mag gi fay na ko mm-hmm. Tuubaa ku fi ñëw war nga selal xam yaay kat xam Serigne Touba mi nga fekk ci moy kan soko ko nak ya xam nga yam fenen waye sunu dekk bi sel bi nan nuko warmal nan nuko ko fonkal nuko ko mhm. waaw ndax ñun danoo xamuñu Serigne Touba nak profondément waye li lu jang ak li lu gis juddo fi magge fi ah ñun de ñemewunoo dem sax naan dañuy filmer bërët ba sax may filmer ba di yëg ci sooroor bi bay tegi soow wax fa dëgg yàlla dara leeru rafetlu woo ko rafetlu wu ma ko moom su dee loolu am na moom rafetlu wu ma ko mhm. waaw d' accord euh, tey suñu xawee wàccu tuuti maman Aïssa ñëw si maman Aïcha en personne maanaam ñi ngi la xam si wàllum théâtre te it nga marqué si nag lu am solo euh, ñu gëj la gis nag si série yi loolu lan moo ko waral ah euh, sax warta mhm. waaye wax fa dëgg yàlla maa ngi ci série yi ndax maa ngi tournée ak Mburundi mhm. waaw te am na loo xam ne mu ngi ci woon bi di dikk mhm. waaw su ko yàlla dogalee dana ñëw mhm. parce que nit ki mënoo lekk lu dul sa wërsëg waaw man aar dama koo bëgg parce que xaalisu aar lan ma ngénte man aman njaay sàmm mooy sama papa moo way ñaani bañ ñaani bañ jël ko def ko hymne de la paix kon man aar ci sama deret la ne mhm. wax fa dëgg yàlla mhm. kuy sa baay Eumane Ndiaye sàmm kuy sa baay Samba Jabare kuy sa baay Jën Fatou Thiam sàmm kooku wax fa dëgg yàlla boo nekkul artiste suñu laaj la ko m-m-m-, munuma way nag mais yàlla saf xorom la ma nii laa ma samel mhm. xëy na gars yi dañ maa gën a coté rek ma jubbantiku waaye damaa yàgg a neex yàgg saf xorom nit ñi bëgg ma fi mu nekk nii dé bëri ba ma duggee Touba Mbacke ba léegi fu ma topp nit ñaa ngi daw nit ñi di ma wër xale yeeg mag ñeeg ku nekk. Mhm. sant yàlla rek sant mhm. yàlla. sant yàlla mhm. ay yàlla. <laughs> ngay def aar dem ko tey di ko dund mu nekk si yow euh, tey su ma la doon laaj série yi Sénégal naka nga ko gisee parce que bëri na trop ah. série Sénégal day vraiment ni ma ko gisee mooy dañuy def ku nu jot jël dugal artistes yi nga xam ne nii danoo galère mbapat. ñu ngi fi. boo seetee mbaruudi ñoom seen ay film yëpp seeni élément rek la ñuy jël. ba ci publicité yi yëpp seen i élément la ñuy jël mhm. euh, am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek bëgg xaalis def benn affaire bu buñ ko ci buñ xasee gañe xaalis bi seen yoon nekkatu ci dem nañ seen yoon mhm. mais artiste bu ci xam sa bopp di nga xool label bu baax a baax a baax a baax nga toog xaar ba nu woo la nga dem fa mhm. ndax nit ki mënoo jël sa image di ko étaler te doo ci am dara sa image day dem producteur bi image am demut xëy turam mooy dem mais yow la gis sa image tay tey série yi bari bari bari tay jamono ji ban série nga tok rek santé sa bop xana mburu de gi mané non série yi daw ci télé lax ndax sétano ben série nga né li day sentir na sama bop série bi. bari na. karma sentir na ci sama bop bu baakha baakha baax a bu sentir na ci bop sama bop maîtresse d'une femme mariée sentir na ci sama bop man li nelaw ci man batay yewu deggal <laughs> dan may jox seeni dialogue ma def ko. jaar fi ma war a jaarlu waaye bu ma doon dikk ñu ne ma nii rek lay demee demal. demal bu ma ñëwee dama koy toj. Mhm. waaw ah mais série bi nga tudd sànq muy infidèle euh, sénégalais yi si bari dañ koy joxañ baaram ne liñ fay joué dëppoo wul ak suñu ay réalité loolu nga si. xam nga lan war a bàyyi dëppoo wut ak suñuy réalité dëppoo wut ak suñuy réalité mais ñoom la ñuy def la ñuy tourné foofu ci film boobu loolu moo am ci adduna mhm. moo fi am li am ci àdduna la nuy def mi ngi mel ni rek dina ma neex bi muy daw xale yu jigéen ñi ñëpp ay mbaraan da ngay xool am na foo xam ne daaru dafa génn ak Maymuna romb xale bu góor bi yuuxu ne wunka fi nekk ne nan ko reyal wunku bi kooku dugg ci biir ñu mbaraanaale ko lépp fi am la nekk infidèle moo am ci réew mi. dóor yeeg yëpp nan bàyyi suñuy wone benn affaire ñu bëgg cee taxaw di kii nan xool kii li muy def lu mu wundu. Mhm. nu nu xool. ñu xool li sa biir biir sa biir biir biir biir biir daf moo fi am.